jaajëfal leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek cérémonie passation service bi nga xamante rek moom moo doxoon ci diggante ministère de la jeunesse di Pape Malick Ndour mi nga xamante ne rek jëbbal na lenge yi kii di Khady Diène gay mu nekkoon nag bés boo xamante ni rek daal dinañ koy marqué lool mu nekkoon ab tournant ñeel nag ci carrière am kii di Malick Ndour la mu daal di xam ne rek moom ci jëmi boppam rek nekk na acteur boo xamante ne rek dafay yëngatu. ci wàllum politique bu sénégalais waaye nag nekk na défense ku doon défendre bu baax kii di président Macky Sall daal dinay profité ci occasion bi ci boobu boobule fet nag ngir indi ay leeral ci côté nag vie personnelle am ak lii di nangum politique bu ñu sukkandiku rek ci kii di Malick lamu la daal di xam ne moo di nag moom ci jëmmi boppam rek jot na dugg nag ci ay événement politique yu bare bari waaye nag jot na ci am ay position yoo xamante ne rek naanaam da tey am ab position yoo xamante ne rek des fois nag lay doon yu wuute lool ak lii di politique ndax politique ci jëmi boppam rek nekkul woon métier de base am mbir mu nu mel mi ngi ko daal di xam ne rek laata nag muy jébbal yooyu léegi ne na nag laata rek ñu koy dénk li nga xamante ne rek moom mooy ministère de la jeunesse moom ci jëmi boppam rek jotoon na liggéey ca Prodac laata lool tamit nag nekkoon na nag ministre de la finance ba tey rek la mu daal di xam ne ne nag bu koy yàlla soobee rek mën na ca delluwaat waaye nag dafa jot rek mu daal di leeral bu baax nag que ne ci jëmi jëmmi boppam daal mësul nekk métier laata nag muy ñëw ci politique bi bi nga xamante ne rek moom la doon liggéeyee mu nekkoon approche boo xamante ne rek da ko doon sóoraale bu baax ci lu ñëwagu waaye nag lépp rek ci responsabilité la daal di tënku ba tey la mu daal di xam ne ñu ne daal xel mu dal rek la am ci conviction yi nga xamante ne rek moom moo nekk ci wàllum politique bu fekkee ne tey tey rek dem nañ ba capable wala di raisonné yenn yi ci anam bi nga xamante ne rek moom la waree moo dina nag li ko waral du lenn rek parce que nag dafay wane nag ñoom ci seen jëmmi bopp rek dañoo décider te xam ne poste bi ñu nekk nag ak responsabilité bi nga xamante ne daal dinañ leen koy jox décret bi leen fa yóbbu nag mën na leen fa folli waral rek ñoom ci seen jëmmi bopp rek ñu concentré bu baax ci seen liggéey mu nekk nag avis personnel boo xamante ne rek moom ma cay liggéey moom la concert ne woon mu dal cay yokk nag ne nag ñoom lépp loo xamante ni rek seen liggéey la ci ak dal daal lañ koy def maanaam daal ci conscience waaye fexe rek ba poste bi nag bu ñu fa jógee ko dara du fa ñaaw ñeel lii di postu gouvernementaux yi nga xamante ne rek des fois dañ ci am motivation boo xamante ne rek lépp rek ci affaire yu intégrité waaye nag fexe rek ba bàyyi lépp luy problème ndax nag mbir mu nu mel eh, gis nañ ne bu ñu ko defee rek mën nañ caa gis loo xamante ne rek du noon ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo leen war a wuutu ca boobule eh, poste eh, faw rek ñu rafetal nag seen nekkin ba tey rek ne na démarche bi nga xamante ne rek yàgg nañu ko def ànd ko ak conscience ci jëmi boppam rek mën na leen di yóbbu waaye nag mën na tax sax ñu dàq leen ci seen fonction ñoom nag ne dañoo souhaité rek bu ñuy agir daañu jaarale ko ci yoon fexe rek ba ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo leen di nara a wutu ëllëg bu ñu toogee càmbar seen dossier duñ ci gis benn problème ba tey kii di Malick Ndour daal dinay dëggal nag seen décision yi nga xamante ne rek jëloon na ko ci mbir mu da koy def ak conscience maanaam daal ci xel mu dal la koy def ndax gis na ne rek poste bu mel nag poste pouvoir la ba tey mu daal di yokk nag ñoom ci seen jëm yi bopp xamoon nañu xel que ne nag bés dina ñëw rek ñu daal di leen fay remplacer maanaam bés dina ñëw ñu dal di leen jugee ko ñu daal di leen jëlee ca boobule bopp moomel waral rek bépp décision boo xamante ne rek doon nañ ko jël dañ ciy ànd ak conscience ndaxte nag xam nañ ne fa sax dàkk ba tey rek ne la raison bu nu mel moom moo waral sax seen position daal toujours rek dañ doon constant ci seen liggéey waaye rek di liggéey liggéey bu am solo sans ñu li nga xamante ne rek moom mooy seen avenir personnel waaye rek liggéey bu nu mel nag bu ñu ko defee rek dañoo xam ne nag dañ ko war a def jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification maño, a usted